temps li xaw a yëngal Sénégal na nit ñi japp ne que ça ne vient pas du président de la République son excellence monsieur Macky Sall et ça ne vient pas aussi de son parti l'Alliance pour la République koku nit ñi nañ ko baye xel bu baaxa baax. ci yoyé kàddu ci la wa APR bu sikap tambalé seenug ndaje ngir teggi waye tamit andi ay leral ci li waral ñu daal toxal yi la élection te waroon a am ci wéru février atum 2024 bi ñu nekk. moom njiital APR bu sikap di monsieur Aliou Mara delu si ci ni mu gëna a ci li waral ñu toxal yi la élection. c'est les députés des députés de l'opposition à savoir le parti démocratique sénégalais qui n'a pas été avec nous le groupe Wallou qui a son groupe parlementaire lors des dernières élections on n'a pas été ensemble donc nous avons déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale une demande de mise en place d'une commission d'enquête parce que c'est considéré comme lésé pour l'élection présidentielle, à savoir leur candidat qui est Karibouat. Ils ont trouvé qu'il a été injustement éliminé de la course au présidentiel. pareil, nous, nous avons des soupçons de guerre madame, de corruption que conseil constitutionnel jot corrompre pour ñu éliminer Karim Wade mu am tamit ay candidats yoo xam te tamit nee nañu ñoom jot éliminer parce que dafa am euh, double nationalité yu ñu am am sax ñoo xam te joñ ne candidats yoo xam te plutôt ñu alors que dañoo am double nationalité lolou bu amé ni ñi nga xam contrôler le pouvoir exécutif de l'Assemblée nationale ak ki nga xam de arbitre élection yi ñom ñaar crise assemblée nationale a accusé de corruption le conseil constitutionnel conseil constitutionnel ñom aussi porte plainte contre ses députés de Wallou, ndax li ñu leen wax donc crise bobu nous demain ko nous démé nonu élection bés bu ñu génnee résultat yi élection Sénégal dafa na crise bu gën a mag boobu mooy am parce que kenn du wóolu résultat yi conseil constitutionnel joxe. gannaaw bi ñenn ñi jàppee ne tappale képp moo waral ñu toxal yi l'élection ñoom waa APR bu Sicap daal di ci indi ay leeral yu yaatoo yaatu ba yegg ci xamal askan wi ne la sooke toxalub élection tukkeewul ci président Macky Sall jotewu ca laalewu ca lenn la mu ca def mooy ñu amal ak ndëggandiku ba mën a amal ay élections yu jaar yoon ci jàmm ak ak dal. et le président Macky Sall dans sa grande sagesse mu xam ne loolu su bàyyee mu jàll Sénégal dina tàkk mu ne balaa loolu yëpp di fi am comme que député opposition waa wàllu seen bopp ñoom ñoo déposé pour mu am benn dérogation sur l'article 31 de la Constitution boo xam ne le décret qui avait convoqué le collège électoral pour ñu donner élection le 25 février pour ñu le décret boobu dugal un décret pour ñu donner élection jusqu'au mois de décembre. mboolem ñi wër di wax naan président Macky Sall dafa fomandi élection yi ndax jekkadiwul bokkuloo gis-gis ak responsable politique yi fare ci APR bu SICAP ndax ñoom dañoo jàpp ne élection yi président Macky Sall fomm ko toxalu ko ba yeneen yat da kaa puusandi rek la koy nous di at mi ñu ñu amal report pour un an ou pour deux ans on n'est pas sorti de l'année électorale. élection est mi le 25 février 2024, mais nous pousse le 15 décembre 2024, on est dans la même année c'est juste un décalage pour y voir clair pour ñi nga xam de corrupteurs ñi nga xam te ñu ne am na candidat yu waru jàll pour ñu mën a leeral loolu yépp donc je pense que pour préserver notre cher Sénégal d'une crise qui peut avoir des conséquences incalculables moo président ne ñii li ñu demandé nañu pousse élection yi comme ça enquête commission d'enquête parlementaire boobu mën mettre en place ñeneen ñi nga xam ne jot seen candidat ay candidat waru woon jàll parce que ils ont une double nationalité yooyu yëpp ñu leeral ko ba mu leer ñu doog a dem nag ci ay élection yu apaisé moo gën ñuy dem ci ay élection yoo xam ne kii naan kii li mu def jàlluwul kii euh, c'est un c'est un corrupteur kii c'est un corrompu ak yooyu ñu bàyyi leeral lépp mu leer ñu doog a dem nag ci ay élection yu leer nañ mais ñu gën a bari ñu bari ñooy foog ne que élection yi dañ ko repousser parce que ñoo bëgg a daw pour gën a defaru wala yooyu non c'est pas ça gannaaw boobee toxal waa APR sikap di ñaawlu ñi ànd ak président Macky Sall te di ko suuxlu ak daw seeni responsabilité ñu jàppe leen ay bukki yu sàngoo deru béy ndax président Macky Sall dese latu leen dara waaye fu mu mettee rek ñu daal di koy wan gannaaw li fi am yëpp coow yëpp ku nekk naan ay dafa pousse élection ay dafa lii ak lële ba fi biir partem mu am fi sax koo xam te si ñun la bokk koo xam te président Macky Sall desalu ko dara parce que nous, ñi nga xam ne ñoo ko xeexal fii si biir parce que nous, sommes ñuy ànd ak président Macky Sall ñun ñii ñi nekk sama ginnaaw le président Macky n'était pas encore président il était candidat aux élections présidentielles ñu xam sunu tànku tubéy jusqu'à le porter au pouvoir on a participé à ceux qui l'ont porté au pouvoir de 2012 jusqu'à maintenant nous ànd ak contre vents et marées muy metti muy nous muy fedd ñu ngi ak moom musuñu daw musuñu reculer. Amna nous xamné la métier président instant yo xamné so amé loy wax amna fuñ ko won ko fu mëna dem wax muy des leaders par exemple exemple mais président wax nga parti nga nga sa avis.

bu ñu waree dem ci terrain bi daaw ko def kon boog tey dégg naa mu naan président Macky maa koy défendre mais loolu défendre président Macky sal ci kaw ci ci rajo yeeg télé yi boo ko représenté wul au niveau de la base doo am li mu bëgg. ñoom waa APR bu Sicap di ñu yàgg ànd ak président Macky Sall ba dara nekkul dara fas yéene topp ci ginnaawam di ko xeexle. diko ko guddil ak beccegal ndax ñoom seen gëm-gëm moy lu waay di mbubboo da koy niru te bu la mbir jaralee da nga cey dem ba jeex tàkk. ñun bi ñuy ñafeel président ñoom nekkuñu fi xamuñu fi ñu nekkon tay ñoñu am fit taxaw naan li fi am c'est une honte pour la démocratie ça c'est une défiance envers le président Macky Sall et ça je pense que le président ne doit pas laisser ça passer faut que le président prenne ses responsabilités par rapport à ça. En tout cas, nous, au niveau de la FICAP, nous allons prendre nos responsabilités. On va occuper le terrain. Certes, les élections sont repoussées jusqu'au 15 décembre, mais on va occuper le terrain jusqu'au 15 décembre. dama son excellence nous sur ces réalisations ce fait les deux mandats il a tout fait pour le Sénégal à travers toutes ses réalisations. Tant dans le domaine de la santé, de l'éducation, de <coughs> l'environnement, dans tous les domaines, surtout dans le monde rural. Il a restauré l'équité sociale, il a restauré l'équité territoriale. En toute sincérité, nous sommes suñu pouvoir, pour wax dañu am pour wax pour militants wala toogee fi mbubu coalition Benno Bokk yakar dañ fi toogee mbubu citoyen pour wax ni ñu Sénégal mo ñu ñor suñu gisee excellence le président de doxal lu baax ci Sénégal bëgg stabilité Sénégal dañ ci and ne ko que ne tey réitérer notre engagement indéfectible et notre loyauté pour acte bu posé le report des élections